G maa ngi lay nuyu bu baax a baax ñu commencé ko ci point bu njëkk bi rek nga xamné mesure prise lors du conseil des ministres semaine euh, conseil des ministres séminaire gouvernemental sur les réformes de la justice euh, Abdou Nguer loolu léral nga mëna a indi foofu noonu. waaw bokkoon na ci seen programme nenañ ci seen projet bi sax lañu wax moy mhm. buñu falo dañu bëgg justice moom bopam comme ñom dañu yag di tirer ci justice. di yàgg ni justice bi dañ koy manipuler ñu ne ñoom suñu ñëwee dinañ fexe ba justice bi am indépendant moom boppam malgré loolu sa wax ju yàqu la parce que Sénégal ku ne xam nañ suñu justice moom ñoo moom seen bopp parce que ñoom ban genre moom boppam ku justice yi wax parce que mënoo ne dama bëgg justice moom boppam nga jël nga fal ministre de la justice man pour man ñoom biñ ñëwee waruñu woon a fal ministre de la justice dañoo waroon a bàyyi procureur am ay sañ-sañam yo xamne dañ ko koy jox xamne ministre de la justice dotul am dotul am kenn ko xamne da nga nan procureur jugal Abdou Nguer kat wax na wala jugal Abdou Nguer def na li demal nga japp ko wala ni procureur moy xol tok am sañ-sañu di xol dekk bi ko xamne jadd na yoon mom am sañ-sañu jóg japp ko indi ko tek ko ci yoon te kenn du ko sañ wax bayil wala kenn du ko wax jappal parce que liñu gis moy fi procureur rek mo mom lañ mëna wax momul mais bu dee juge yi magistrat di magistrat di siège yi nga xamné ñom ñom ñoo moom seen bopp parce que magistrat debout moy comme procureur yi ñom euh, ministre de la justice su leen waxé jugal Abdou Nguer def na lii moom nam day jóg obligatoire da lay japp indi la mais bu fekkente ne génne nañ ministre de la justice conseil supérieur de la magistrature ñom tam ñu génne ci seen loxo comme niñ ko waxé bayi leen ñu doxal kon mën nañ ne justice dina doxal ak boppam mais justice moo moom boppam moom loolu moom ñun ñëpp ko xam mais procureur la ñuy wax procureur lañ la ñuy fexe du am patron xam moom mooy patron boppam moom mooy sañ a gis na lii jaaduwut mu sañ jël dugal ci loxoom te loolu la ma ko waxoon rek bis bu ñu ko defee ñoom du leen arranger parce que ñoom ci seen biir dafa bari ñoo xam ne na ma yàlla baal dañoo dënk ci ñu ànd ak ñoom ak seeni i militants seen i sympathisants su ñu bàyyee nag indi benn procureur boo xam ne jub. jubal rek moo ko ñor bu yàggee yaakaar naa ñoom ñooy defaat ay réforme ne ko nag taxawal sama genre yi ñoom tiituñu loolu sama genre loolu lañ gën a bëgg sax indi procureur boo xam ne dindi ministre de la justice sax laay wax maanaam ministre de la justice bu ñu fal amatul benn njëriñ fekkee dañuy def réforme mais yow foog nga ne ministre waaw fekk ci ci li ñu wax ñoom boo ko bëggee def ministre de la justice day ñàkk pour mooy gën parce que sinon da ngay dagg cordon bi nekk diggante ministre de la justice ak procureur même boo falee ministre de la justice ndogal yi mu war a jox ndogal yi muy jox procureur cordon boobu dagg ko moom ministre de la justice sax bu jàdd yoon procureur sañ na ko woolu mu ñëw waaw parce que Sénégal nag gisaguñ fi loolu procureur bu woolu ministre sax yomb fi léegi am na doole ji am na nu nu ñuy dagge cordon bi ndox diggante ma exécutif bi dina mën a di agir heure bu ko neexee nga xam ne kenn du ko woo fajar ndax seetaan nga li taas wax ndax seetaan nga li diw wax ndax diw mi jaaroon fee ndax sëriñ bee lam wax kenn dootu ko wax moom mooy daal jël ordinateur am wala ay information yi muy jot ñëw mu mën ci am sañ-sañu jël ciy dogal te du neex te kenn du ko sañ a wax bàyyil parce que justice bi maanaam réforme yooyu bu amoon avant réforme yi ñuy wax ñoom avant bu amoon kon Ousmane Sonko jour jour bi ñu ko nee kaay wuy ji yoon du sañ a nekk ci mbedd mi di def di wëreelu. d'accord loolu la woon ministre de la justice ak procureur comme dañoo bokk ñoom ñaar fu ñuy rootee. Mhm. Euh, est-ce que nekkul ne loolu moo tax comme ku ci def loo xam ne wuroo ko defee jàdd yoon comme ni nga ko waxee léegi du keneen ki du woo morom bi daal. waaw ma man la boobaa. gis nga bu ñu cordon bi nekk seen diggante. Mhm. procureur moom mooy nekk patron boppam. dootul nek ne ñoom ñoo koy fal xam nga ñoom ñooy fal procureur Taiji, jii Bassirou Diomaye Faye bu ko suba suba mu génnee procureur bi fi ne indi keneen léegi nag loolu cordon bob. léegi ber procureur à nga xam mom moy mooy liggéey boppam dem jox ko juge yi juge yi kenn yilifu len mom pour mu leer mom juge kenn yilifu len ñom ñoy yilif seen bop dossier bi dang ko koy jox mom mu xool taalam atte ci intime conviction kii mais procureur mom dañ ko yilif kii patron nag mooy ministre de la justice ministre de la justice président de la république mooy patron cordon boobu la dagg loolu jërul sax woote ay yenn kii ay réunion nii loolu neex naa lijjanti ci ñoom neex naa lijjanti ci ñoom moom bu ñu ko bëggee lijjanti bu ñu fi nekk di ko théorie mel ne lu extraordinaire lu neex a lijjanti la comme bonjour d'accord